ñi nga xam ni famille yi nga xam ni dañ ci am ay ci seen bakkan faat di leen massaw bu baax a baax dama gis taxawaayu aftu parce que au-delà attentat bi dañu bëggoon téye économie dëkk bi économie dëkk bi bu transport doxulee dara du dox waaye taxawaay bu ci aftu am dama koy sant bu baax leen gërëm ci taxawaay boobale parce que dañu wane ni kenn mënu leen xoqatal kenn mënu leen tere liggéey taxaay boobu moo génn moom moo am te ñun au niveau du ministère aussi xam nañ ko bu baax donc daañ ci gën a taxaw